tu as un un alwaar portable mu ngi nekk marché tu bu un en face terrain basket téléphone 77 656 44 87 Alloir portable Ça su des day de a jege askan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 le ci effet secondaire Manila, un produit à base de carité. 20 jours là la may pour la neexee commencez à njaab-njaabu fini les lèvres noires le secret est avec zobutu Beauty cosmétique ku fi sa désormais yaa ko texte sa bopp wutal VIP lèvres roses, mou fait sa aajo ça li ci gën a neex mooy am na ñaari gamme yu ci savon d'urgence à crème visage VIP C'est zobutu Beauty cosmétique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 est-ce que xam nga lu ma neex ci yow. déedéet. da nga da nga am voix sa voix dafa dafa grave mais boo waxee damay sentir ni kilifa dëgg mooy wax. ah. jibi ndeysaan loolu bari nga ci morom bi xanaa xamoon ne jibi man def bango. ah. ah waaw def naa bango de. kii yam ci yoon. ah kon yow li nit ñi xam-xam nga ko. parce que ci yàlla moom def bango de. sa voix daal man boo waxee damay sentir nii. góor dëgg mooy wax. kilifa dëgg mooy wax da nga am voix kan. Hmm? xam nga xam nga loolu armée dañ la koy jàngal. da ngeen da ngeen di da ngeen di rang. nekk ay cinq cent et quelques personnes. kenn ku ci ne ñuy natt sa voix di xool. sa corde vocale yi ni mu ni mu mel. sa bos baax na. lay lay la la eh waay waay waay ay Ibnu Moussa Ndao Alaaji Baro. cum Baro Seck. ma ni président. Oh. yow eh, eh, eh. eh. waxal eh. yow da nga fi da nga da nga romb nii ay nit. ay xaj laa fi romb. waaw. kon daal ñun ay xaj lañ. bu mag te yow xam nga lan laa lay yëgal tey ci suba si. li xew day dàq. man jéeg laa du ma jeget. yaa ngi dégg fekkoo ma ci mbedd mi takk ma fekkoo ma ci boîte bi takk ma biir kër nga ma fekk ngay paa yow xam nga man xam naa dafoo dara dalu la yow xam nga ne rek pour ma am plaisir lu ne lay def hmm. régler sa bopp nag. mag bu amee sutura moo ko may boppam na daq du ma sat kim kon ki tàngi du ma sat leneen ak leneen suba ba tey nga topp ma na ma sat saab mel ne du ma ci boole samay wax eh eh taxawal taxawal doo taxaw doo taxaw bi nga bi nga bi nga taxawee ñun ñun ay xaj lañu ko pare waroon ngaa taxaw ma wax la yow li nga doon yow loo yow doon yow ah waa kii yabaatewul waa kii réewul ah kii nag mi kii nag ay mbiram mi ngi bëgg ëpp ay mbirum ya, ya, di ngi bëgg ëpp. ci xaj bi la bokk ba nga ni. ci xaj bi mu wax man. ñun ñëpp la traité ay xaj. tur Cobra ñun ñëpp la traité ay xaj. ah waaye waroon nga taxaw ma wax la yow li nga do nga ni musuma laa jox plaisir. ah ya mën fen. ya mën fen. yow yow ya, xam nga ni do gor de. Ah. dama jox ma sama tension maître bi dama jox ma ko dama jox ma ko gaaw ndax docteur bi ne na wax ji bu mu bari dama jox ma ko. kii tey maa du yomb ci kër gi. maa moom maa moom maa moom du a nga ko juutal puusal puusal nale la nale ay dee. ah kii yëpp kii kii dem na vingt vingt la dem. ñu deel ma rey. waaw tension vingt. la am tension. wax naa ba sama tension bi yegg. Cobra yaa bon. yaa yées. yow doo yow doo yow xam nga ne pour nga doo gërëm ñamu daaw. cim bu bu fekkee ne dañ laa li la ki nga seyal paa la ah. yow yaa ñàkk jot waaye xam nga xam nga ni man duma paane nga kii fu mu jëm ni may ma sama baat yow danga ngaa jobal da ngaa ful buur bu xamul say xam dee na sama baat may ma ko léegi-léegi damay dem xamoo ne say naw léegi may wër sa maroomo paa koo ma ci présenté altina talaata mu doxaan ma ma am lu may rus am lu may jomm yow xam nga ne midi nga may fase et demi ma jaar ci xale bu góor bu jantal bu fere nag kala bu ndaw di sey jaw di la sutural xama sabab may ma sama bat, voilà yam may ko hmm may ko baat. lu tax nga di ko may bat dama ne ñooy ku nam jam dama ñaan doo ko may. lan mo ci sa yoon ndu ci lolu nak sa ndu ci dama bëgg mu leer. man de ñaan ma may. dama ni dama bëgg mu leer ki sama jabaru bakkan la loolu sa ci dama bëgg nga doon xalé nak xalé day xamni xalé la lan moy sa yoon ci bat bat bo xamni ne yow yow yow yow yow yow yow soso ko. ay la neen soo dama rem ngeen xaar ma xaar leen ma ci buntu bi ma ngi ni di ñëw bat la ñaan li xaar leen ma. dama ne neen soo dama rem nag. gis nga dang ma ñaan bat ñu ne ci koor te koor c'est un mois béni boo ko barax lu ma may la degguma de barax loog lepp ci am bat bat la may ma sama bat bu eh, deme ba tagga sante ci am ak yablu may ma sama baat. ki eh, ben ko wa kan mo mom bat bi man dedet momo baat bi maa moom baat bi déedéet Cobra yaa ma koy may yow bra momo baat bi baat góor koy dag goro koy dag tamen dag guma baat bi di ko dag nak dag duma ko dag bing ko dag par force dole ba du ma ko dagg Cobra par force dole ba xam nga la lay yegal wuy mo ci boole samay wax Cobra Cobra wuy mo damaa ni ci wer ko yow xam nga lol ba deglu ma rek yow mi xey watan ah ci suba ba tay ma ñoma ma jàmm di tëll tëll di mel bu bes yow xam nga lol may ma sama bat damay dem Duki aja jëlante nee na nga may ma ko looy dong. Hmm. daa sob da ngaa sob. loolu nga jël waaye sa yónnee sama diggante ak sama soxna sa yónnee wu ci. Hmm. Euh, wuy ma kañ dem ci nih ñu waxtaan. sama valise du teg ko. kañ dem ci biir ñu waxtaan. teg ko waxtaanu ma de. du ma ko teg. waxtaanu ma sama baat. du ma ko teg baat bi du ma ko dagg. du ma ko dagg. donc boo ñëwee ci biir dégg yaa jaay daay maa ngi lay xaar tuuti. Bukan baat topp nga ma koy maye. waaw Seydou loolu lañ koy Nakar gua kan lagian padu madu cekir tuh dara Mau tau pencet pencetak sama yang ada malah menendang yang mencahin ledak waaw nah, yooyu itam da ngaa war a bàyyi lenn yow yow bu bu nu waxee di jël say bagage génn naan may ma sama baat loolu yow tam da nga di bayi. waaw ah, noppi noppi noppi noppi xam nga ni koo wax koo wax sa jëkkër ba ba sa rongoñ tuuru xam nga ni xam nga ni bëgg nga sa jëkkër yow tu même tu même jibi sàmb daal moo ma di ma monté di ma monté moo buye seen di ma monté waaw ah, ba ma am comportement bu mel nii waaye man xam nga ni lii sax man. yéen ya, ya, ya, ma taw la yow yaa ma bëgg a taw. lu ni. yow yaa ma bëgg a taw kenn ma taw la fii. damay ci weeru koor la damay tas damay tas. Kobra, budak tuh. Mana? Mana gue ini? Kobra. Kobra. Kobra, budak tuh. ini Insya Allah, lula nak dina jeex. di ñoom ñëpp kenn kian ci ne di ma monté di ma monté kecil kerja lima monte lima monte bawa tali ñëpp kau wax ak di dinaa liggéey dinaa liggéey xarum. comportement bi kay jaaxal na ma trop comportement bi ma am waaw moom kay loxo jugu ci de loxo jugu ci moom waaw waaye nag lu loxo def rek loxo mën na koo dindi yow gul joon bul jooy bul jooy te it bul jëlati mukk say bagage naan da ngay ñibbi bul defati loolu bul loolu man loolu boo ko defee sama àddina bi yëpp day tukki waaw day gën a yéegal sama tension bi te docteur bi li ma wax leer na ma coow li moom bu yeboo noo ko mën a maytoo nga maytoo ko noppil noppil noppil dinaa la neexal wuyu ma wuyu ma Cobra mais wuyu ma eh ba na na moom dinaa la neexal dinaa la la neexal dégg dégg la neexal dégg waaw kay waaw kay noppi ñu jóg yow boo jooyee rek sama àdduna bi dafay tukki ok ndeysaan naa la jooyal man may dugub jooy daan na ma neexalee alal lekk dana fàtte ni bandi nga takk yow koo fàtte man jooy benn góor nga mel ne Isa Wara isal bal patak sa xaptaan bu min saa mandi gom xolos saax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 Amna, aloir 1 ak aloir 2 Nek marché central Thiès avenue Amadou Niagne Sow fay jaay téléphone portable toute marque en gros et en détail ak près xeetu accessoire téléphone 78 592 63 63 ak le 77 533 02 02 Nous aussi aloir marché Moussanté en face maquette bi ñoo ngi jaay lépp luy électroménager téléphone 77 070 45 00 Tivaouane Nous nañu aloir portable Mouguinek nek marché mbëkkante bu en face terrain basket téléphone 77 656 44 87 Aloir portable Sasune, des ne day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 te doo si gis ben effet secondaire Manila, un produit à base de karité 20 jours la la may bu la nexé guen commencer njaab-njaabu bande fini les lèvres noires le secret est avec Zo Beauty cosmétique ku fi sa désormais yaa ko teg sa bopp woutal VIP lèvres roses mu fecc sa aajo li ci gëna a neex mooy am ñaari gamme yu ci dolé savon d'urgence à crème visage VIP chez Zo Beauty cosmétique moment mën moo ëpp doole te mo gëna fété alors qu'attendez-vous ñi ngi nekk Dakar Dakar le nañ livrer partout au Sénégal Ou au gaaw League, 77 127 68 80 Des but du cosmétique l'Ouai de الحمد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 kokan la ñu le Serigne djabi, kokan la ñu le borom sijaada bi grand marabout de la Casamance doté d'une dimension spirituelle très élevée même mal à ko wax dafay di un voyant hors pair Safara ay jafé jafé moma ci doy ay buntu yu tëju mo ci gaaw D'a sonal gorgu ou katan, faiblesse sexuelle ou impuissance Yenni ñi am jafé jafé ci sen biiri sey sëy nga bëgg retrouver sa ex mo xam muy mba ci geen yeen ñi jongante concours